tey jii nag mooy bisu korite bis bi nga xamante ni moom la jul yëpp di màggal dernier jour bi nga xamante ni kenn dootu ko woor maanaam xiif mar lépp a jeex mbokk yi déwlati leen baal leen ñu àq ñu ngi baal ñëpp àq. comme que tey la korite dañ leen daal baalu àq rek. ndax bis bu sell la macha allah ñu ngi leen di baalu yéen ñëpp ak ñu kenn kenn surtout yéen ñi nga xamante ne yéen safoo seen télévision la LCS kon dañu daal di lante rek ba beneen yoon incha allah di leen wax déwénati. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àddina ñu nuyu leen bu baax a baax sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sangu-sang yi Seydina Mouhamed di leen gërëm di leen jaajëfal di am saa su ne mbégte rek saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen ndax damay faral di wax naan. kiy wax kiy déglu mooy bokkam waaye kiy wax ak di feeñ boo koy déglu di ko seetaan xolam day neex ba yegg ci lool man nag moom vraiment awma seen fay lu dul rek balaa may def dara dama leen di baalu àq dama leen di baalu àq bu baax a baax di sàkku ci yéen itam ngeen baal ma àq di ñaan yàlla weeru koor bi nga xam ne ci leen jóge lu luñ ci def muy julli di woor di jaamu yàlla génn muuru koor asaka lépp lu ci waay def rek yàlla na yàlla nangul lépp ginnaaw ba nee nañu boo ci waay defee benn suñu borom ful ko def ko sant ndax moom dong moo koy fayal boppam moom itam dañuy ñaan mu nangul ñu lépp luñ ci def rek mu yokkal ñu ko bu baax a baax jaajafal naa leen baax a baax baalu naa leen ax ah, yéen am leen jàmm ba kenn laal leen ngeen woo ma man. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan maa ngi leen di ziar di leen nuyu di leen jaajëfal ci weeru màgg bi ñu jógee muy weeru ramadan ñu ñëw ci pour bàllu àq suñu ñi nga xam ne tout le temps dañuy seetaan si LASS wax dëgg yàlla mu doon weer boo xam ne weer bu màgg la woon mu doon weer bu amoon solo mu doon weer boo xam ni nag man dafa am message bu ma ciy lancé mu doon benn message boo xam ni franchement niñ ko jàppoo woon nii ci weer bi neex na euh, am na jàmm am na sutura dëkk bi daloon na ñaani macha allah yi dund nañ ko ci ak jàmm gu wér a wér wér a damay ñaan yàlla mu continuer ñeneen ñi nga xam ni mën nañu. ñu dimbale ñi nga xam ne mënuñu ñi nga xam ne mënuñu nañu xam ne yàlla loolu la leen teg te ñu doyloo ko te nañ am solidarité bu mag li ñu def nii nañ ko continuer ci weeru ramadan bi mu continuer doon douze mois yu mat sëkk maa ngi leen di jaajëfal di leen baalu àq ngeen baal ma àq ay ci ci wéru sel bu tedd bi nga xamantene tubar tubaar fakàlla nee waxtu wi temb ku ci nek fa nga toogee euh, nee la neel sa morom jabb loxo ne ko bal ma ak te man maa ngi man day mad maa ngi baalu àq sama fans yi di bal ak nit ñi di bal addu di bal ak aduna gep ha ah. tubar fakàlla di ñaan yal nañ ko dund ay atti atti at ay déwéni déwéni déwén bala ren di déwén ha ah, la scène sénégalaise ci kaw ci kanam na ma ñëpp bal baal naa ñëpp àq ñu fekk ay déwéni déwén déwén na ñepp def dank ginaar yaa ngi you voilà tay nak occasion la ci man ma sakku ci nga xamante ni ñom ño doon lijeenti seen yere yi korité ak seeni ganar ba jot ko ñu woowaat seen bokk yi nekk bitim rew ne leen bal leen ñu ak ndax kat modu modu wumpul leen ne sonu na mu ngi darti darti suba ak ngon di mu yonne njabootam kon koku boko fatte ba korité ba nopi sa xel doora a dem ci mom a ah, lolu euh, daw yaram si même occasion bi nga xamante la LCS au cœur de vos émotions mom momako ma may euh, maa ngi tamit di fatale ne jàkka yi doon na fess tubaar fakàlla solidarité Ramadan ku nek di jox sa morom di dimbali sa morom ku nek di taxawal julli yi comme ni mu waré ngir yalla nañu fexé ba lolu ñu gën ci continuer ñu gëna sax ci lolu ñu baña def rek korité bi euh, passé alors lepp lu nga xamante ni doon nañu ko def. alors ñu daal di koy bàyyi lépp lu waaye saxoon si lu baax na nga si gën a continuer ndax looloo waral korité kon mbokk yi encore une fois de plus euh, baal leen ma àq may profité tamit sama directeur sa France monsieur Lamine Mbeg sama sama sama xol a ngi tooy sax fajul te nga dellu si waat ñu ngi lay baal àq te nga baal ñu àq salaamaaleykum mbokk yi xarit téléspectateur ULCS man Anta maa ñëw tey ci bésu màgg bi di bésu Korité ngir ziar leen waaye tamit ngir baalonte ak ak yéen waaye tamit lu ma di ñaan Sénégal jàmm ju sax jàmm ju bari waaye tamit di ñaanal suñu kilifa diine yi ah, waaye tamit di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu nekk ci li nga xamante ne moo di kaso yi ndax kaso nag jaw jombul kenn ñu ngi leen di ziar bu baax ñaan suñu borom génne leen ci jàmm ak salaam waaye ñi xam ne ñoo nekk ci ndóol nekk ci tiis nekk ci nakar yàlla leen suñu borom génnee ci loolu balaa at bee jeex jeex jeex te di ñaan yàlla lépp li nga xam ne waaye ñaan na ko ci ko ci weeru koor bi yàlla nañu ko suñu borom may di wax déwénati bonne fête de la qualité. salaamaaleykum mbokku téléspectateuru LCS la chaîne sénégalaise. ginnaaw bi ñu leen nuyu di leen ziar. di wax déwénati. ñi ngeen di baalu àq di leen baal àq. di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. waaye du ñu fàtte xale yi nga xamante ni gisuñu papa gisuñu yaay ñu leen di ñaanal. yàlla na leen yàlla taxaw waaye bi ñaanal ñi nga xamante ñoo nekk ci prison yi nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu ñu nekk yàlla na leen seen yàlla na suñu borom fëggaat seen bopp ba ñu delluwaat seen njaboot mbokk yi mu nekkoon seen xarit seen soppe Dame ci LCS jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk téléspectateur LCS donc ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu ak di leen baal ñu ngi ñaanal doomu aadama yëpp yi nga xamante ne ni. Euh, ci daraja weeru koor bu sell bi nga xamante ni moom lañ génn ni yal na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla gën a laabal xol yi suñu Sénégal gii yàlla gën fee wàcce lépp loo xamante ne ni lu lu baax la ak loo xamante ne ni luy avancé loolu doomu aadama yi la yal na ko yàlla tàpp si doomu aadama yëpp daraja Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di déwénati di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan jërëjëf asalaamaaleykum àdduna wërngër képp man Aïssatou seen xarit seen doomu ndey nuyu naa leen nu ñu nuyoo buur di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yëpp du dara ci weeru koor la ñu jóge muy rabada mubarak di balu ñëpp ak ak di baal ñëpp ndax bu dara ci weeru koor la ñu jóge muy rabada mubarak di ñaan kilifa diine kilifa aada yi